mooy caba euh, euh, bu Walfadjri nga xam ne nag tey journaux yi moo nekk à la une ci réaction yi nga xam ne nag am na foofu ca euh, Walfadjri ak ca buntu gendarmerie Colobane ñu seeti caba caba <laughs> eh, waay caba eh, caba <laughs> eh, <laughs> maa ngi nuyu ñëpp man caba soo gisee démb man ma jooy Sidi Lamine dafa am loo xam ne bi muy dem la wax moo tax ma jooy parce que Sidi daf ñu wan ginnaaw nañu dénk naa leen yàlla <laughs> barki yàlla li may wax dëgg la parce que yàlla li may wax du ay caaxaan man damaa bëgg Walfadjri bëgg siit la ba tey ma nekk célibataire ndax xam naa ne su ma amee jëkkër le temps may nekk di di nekkaan sama jëkkër mun naa sax toog bañ a liggéey moo tax man wóor na yàlla Walfadjri laa jël léegi féetee ko sama xol parce <laughs> yàlla man ca may bëgg dugg wóor na yàlla man tey. imaginer woon tey bu ñu naroon ma naye te ma ne ku ma dul naye ku dul siidi kon xanaa ki may bëgganteel bu ñëwoon pour ñaan ma semaine bii man xam naa ne dara du baax ndax ñii ma gis nii dama ragal ne dinañ yóbbu siidi gën gàtt kay xanaa parce que maa ngi lii tey ci presse bi ñu ne 6 mois ñu ne gën gàtt 6 mois war a ñaari at siidi Lamine bi muy dugg bay kenn man dama ne siidi jàmbaar la du ma jooy ñu koy gunge ba egg rond bi nga xam ne mooy ambassade Mauritanie ma man du ma waaye Sidi bu mu génnee ba ñeenti policier ak ñeenti gendarme barki yàlla li jar def thème émission daa ñoo taxaw ba ci bunt bi Sidi daa dee ñu loxo yi ma ñaanal leen ñu ne ko déedéet doo ko fi ñaanee mu ne dénk naa leen yàlla maa ngi dem lii mii lii mii ñun xamuñu fan lay mucc ñun nii barke yàlla ñun war na yàlla ñun xamuñu ni fan lay ma jóg ko dul Seydi Seydi mooy président directeur général Seydi mooy secrétaire général Seydi mooy directeur marketing Seydi mooy caméraman mooy réalisateur Seydi mooy fay mooy garde Seydi mooy lijjanti lépp ndax bëgg liggéeyam loolu du question tiit waaye question bëgg liggéey la Seydi sax mooy maye ci kër gi kuñ fi fay Seydi la maye barke yàlla man duma leen wax ne man dama nekk ci di bëggante war a bëggante wu ma waaye man dafa am ku ma seetaloon ne ma doo génn ci at bi te takkuñu la fi yàlla def yàlla def na am na ku ma waxtaanaloon ba war a tudd ko waaye ñu ne jour bi waree seeti seeti na ñu jël si seeti te seeti nee na bàyyi naa parce que ngi wax ne Marème Faye na xool ci ñun waxtaan ak Macky bu fekkee mën na ci dara parce que yàlla <laughs> ci clé bi nag ku ci am loo mën a togg nga indi ndax xam ngeen ne sii dafa lekk baaxee am fu furi baaxee mu indi waaye man tey bu fekkoon ne dañ may may fan laay jëm ci kan laay jëm <laughs> eh, man nag duma fi nekk di guerre de fin ndax yàlla daf